maa ngi leen di gërëm di tàmbali remerciement bi ci jigéenu gëm sa bopp yi nga xam ne teew nañu maa ngi leen di remercier may wax rek jaajëf ñépp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci coalition bu gëm sa bopp te tey ñu def déplacement bi fii tàmbali d'abord ci wax li xew xam ngeen ne samedi jigéen yu gëm sa bopp dañu waroon amal ndajem investiture ne su ma jëmm ju xeebu ji nee nañu ma jàkk tànn nañu ma ngir yóbbu ma ci élection présidentielle bu 2024 alors maa ngi leen ci remercier di leen wax ne marque de confiance la yal nañu suñu boroom dimbali jox ñu kàttan ba yaakaar boobu ngeen am ci suma jëmm ji yaakaar boobu bañ a yàkkeeku ni suñu yaakaar yàkkeekoo ci Macky Sall Macky Sall ak administration seen yéene moo doon saboté manifestation boobu ñu doon def seen yéene moo doon yàq manifestation boobu jigéenu gëm sa bopp bu région de Dakar amoon yéene def ñu gis ci administration territoriale bu partisane administration territoriale bu féete administration territoriale bu àndal ak ñaaxaanaay administration territoriale boo xam ne à la limite c'est des politiciens encagoulés à commencer par le ministre de l'intérieur seen njiit Antoine Félix Diome li ma bëgg ñu wax autorisation xëy na dañu koy wax rek waaye këyit bi ñuy jot sax du autorisation këyit bi day définir plage horaire yi ñu war a utiliser barab ba ñuy defee manifestation waaye bu fekkee da nga ànd ak administration bu cuune ànd ak administration territoriale boo xam ne ànduñu ak yàlla xalaatuñu seen njaboot wutaluñu way seen njaboot dañuy jeng et loolu moo xew sàmm parce que autorisation bi ñu yónnee jigéenu gëm sa bopp ñu ngi leen ko yónnee à 13h manifestation bi waroon commencer 14h quinze h ñu yónnee leen ko 13h ba pare ñu yónnee leen ko ci WhatsApp te naan leen ñëw leen ngeen décharger ci ko waaye comme man ay jigéen yu am fulla laa àndal bi mu ma wonee bi mu ma wonee message bi mu yónnee commissaire bi damaa tax suma génn waaye nag fullaay jaay Dakar ordre bu illégalé kala ko sant boo ko defee jàdd nga yoon ordre bu illégalé da nga koo war a xeex c'est pourquoi je dénonce l'attitude de l'administration territoriale dañuy wax nit ñi ne leen wuti leen autorisation ñaata manifestation ngeen gis ñu dal ci seen kaw parce que amuñu autorisation waaw bu nit wutee autorisation nga jéem koo galgal loo ci camlangal waaye xam ngeen ne nag booy invité nit ci sa ngénte doo bàyyi ba ci jour bi nga ko koy wax bu fekkee bëgg nga mu lekk ci laax et malheureusement malheureusement c'est ce qui s'est passé le samedi avec le sous-préfet de Dagoudane et le ministre de l'Intérieur de l'intérieur Antoine Félix Diop moo tax may sàkku ci opposition bu Sénégal bi ñu ko rawatina ñu ñu toogal ci assemblée nationale parce que nag ay loi moo yore réew règlement moo yore réew ñu ne autorisation yooyu ñuy wax faw ñu sopparñi loi bi opposition bi sàkku si autorité administrative yi désormais bépp dogal bu ñuy jël ñu génne ko ñaari fan laata manifestation bi mu am parce que bu boobaa dana permettre nit ñi mun a amal seen wàccaay parce que nag jigéenu gëm sa bopp bi ma mujjee wax ak Aïda Seck la ñu dajale ñoom ci seen biir lañu ñu toltalaan ñoom ci seen biir def seeni ndiróole def seeni écharpe lañu ñu ca def yëpp toll na ci 16 millions waaw 16 millions bu ñu leen ko yàqalee xam naa ne tooñ nañu leen mais ña leen ko yàqal xamuñu nu ñuy liggéeyee 16 millions nu ñuy sàccee 16 millions lañu xam. beneen bi ci des mooy li xew ci réew mi jamono ji yéen ma ko gën a xam métit bi nekk ci réew mi jaaxle bi nekk ci njaboot jafe-jafe yi nekk ci njaboot gi njaboot gu nekk tey jii. sa fit toogatu le 16 mars ak léegi fukk ñetti nit du moins seen bakkan rot na bi ci mujj tey jii la ca Bignona Mamadou Korka ñu ne ma 22 ans la am bi ñu ma ko waxee suma xel dem ci ndeyam suma xel dem ci ay waajuram parce que góor mën naa gaaw a fàtte waaye bu leen fàtte ni jigéen mooy sukku jur kon li muy métti métti ci jigéen ñi yéen la gën a metti et daf may fàttali événement yi fi amoon mars deux mille vingt ca Ndofane ba ma fa demee sëñ bi sant drame te bakkanam rotoon ca ba ma demee ñu wan ma ñeenti doomam xalaatuma kenn seen yaay laa xalaat moo tax ca jamono boobu laa jël décision ne leen ñii ba keroog ñuy am fukki at ak juróom-ñett sant naa sumay service bu weer wu nekk ñu yónnee leen lañu vous savez loolu li tax ma koy def damay wax saa su ne ne bari na ndaw ci Sénégal bari na ay jeunes yoo xam ne seen espoir dañ ko rey kenn waralu ko lenn waralu ko lu mooy ay politiciens yu bon ay njiitu sàcc ay njiitu rawalekat ay njiit yoo xam ne dara yitteelu leen lu dul muucu deretu askan wi loolu nag moo tax ñu war a xoolaat suñu bopp loolu moo tax politiciens yi jàpp ne dañoo moom réew mi ñu wan leen ne Sénégal moomuñu ko su ma gëm-gëm ak taxawaay bi ma am man Bougane nag ñi ma àndal ci gëm sa mooy wan sénégalais yi ne leen du politicien mooy defar réew wan sénégalais yi ne leen dañ ñu yàgg nax nan ñu état mooy defar réew état du defar réew état day organiser réew état day veiller ci ay règles waaye réew mu la ëpp koom-koom réew mu la ëpp jom ci wàllu jënd ak jaay réew moomu moo la ëpp doole kon ñun dañu yàgg nax Sénégal bu ñu bëggee mu dox nañu fexe suñu koom-koom taxaw koom-koom boobu bu waree taxaw ci yéen ñii lay jaar bàyyi leen di xaar ñi ñu jiite parce que ñi ñu jiite seen ñaq yéen lañu ñu yaakaar fonctionnaire bi toog ci bureau yow mii teg sa taabal boo jëndiwul kilo ceeb jëndiwuloo liitaru dëwlin jëndiwuloo crédit téléphone moom mi toog ci bureau bi karawaatu du am lu mu defuk salaire alkaati bi ci mbedd mi du am lu mu defuk salaire waaw mais kon population bi ñoo am importance population boobu nag fàww ñu bàyyi leen xel parce que tey jii biir na ñëpp ne kër yi jigéen ñi ñoo ko yor biir na ñëpp ne lu baax ci kër yi jigéen ñi la biir na ñëpp ne ne ñun góor bu ñu joxee dépense yéen jigéen ñi yéen koy doon bir na ñëpp ne seen taxawaay bi ngeen am ci seeni mbootaay ci seeni kees avec ci seeni plan la ngeen ca am lépp jëmul fenn lu may taxawu njaboot gi njaboot googu tey moo jaaxle njaboot googu tey lañu ñu diggoon yaakaar Macky Sall diggoon ñu yaakaar fukki at yu ñuy dundee yaakaar mu dig nu yoonu yokkute ñu dem ba ci biir mu soppi ko yoonu yàqute nde ku ne gis na ne Sénégal avancé wu ku ne gis na ne seeni doom ñu ngi ci ay jafe ku ne gis na ne seeni doom ñu ngi ci ay métit man Bougane ak ñi ma àndal ñu takk suñu ndikk ne lenn dong moo ñu soxal fexe ba njaboot jafe-jafe yii ñu nekk ñu teggi leen kon nag xam leen ne incha allahu rabbi dana nu gën a góorgóorlu ci yéene bi nga xam ne am ngeen ko ci ñun li may wax rek ne il faut ñu xeex lii ñu tuddee système te système boobu moo lay gëmloo yow sénégalais bi ne la ñoom ñoo la war a jiite mooy tax président daanaka rakku yàlla la mooy def lu ko neex dafa am kàddu yoo xam ne procureur Alioune ndaw daf ko wax kenn bàyyiwu ci xel procureur Aliou ndaw nee na bi mu nekkee ci CREI yi Macky Sall daf ko woo ba mu ñëw ne ko bul arrêté Abdoulaye Baldé ñun foofu la ñu toll président boo xam ne day nekk yàlla mooy dogal mooy def mooy dindi loolu ñun ñu ne doole président boobu jot nañu wàññi ko ci senegal te loolu nag warul doon wax dong moo taxoon ma amoon yaakaar bu rëy ci opposition bi ñu duggee ci biir assemblée nationale malheureusement ñu teg fa ab njiit loo xam ne sénégalais yi xamuñu ko kenn xamul fu mu jógee kenn xamul fu mu génne lépp lu nit ñi bëgg def ci jubbanti Sénégal moom président assemblée nationale bokk na ci ñi koy salfañ kon nag ñu war a gëm ne justice bi ci ñenn ñi ñu ko sañ wax dañu leen di xolloo yenn ci ay bërëb loolu nag jot na mu dakk parce que li procureur Alioune ndaw wax day firnde rek ne bu dee liste vingt cinq ñu topp ci kenn dong génne ko réew mi te kenn xamul naka la mbir yi demee li nit ñi mën a jàpp mooy am na taxan féete ku wet justice équitable dañu ko soxla ci Sénégal justice bu tëddee njaaxaanaay dañu ko soxla ci Sénégal justice boo xam ne sénégalais yi dañu koy wóolu dañu ko soxla ci Sénégal loolu day tax ñu def truchement dugg ci ñetti nit ñi nga xam ne seen bakkan rot na gis nañu démocratie Sénégal ni ñu koy salfañe gis nañu ni ñuy dale ci kaw opposant yi ku ne gis na li dal ci kaw Ousmane Sonko may ñaan suñu borom fëgg boppam waaye nag waaye nag waaye nag may fàttali acteur politique yi ci Sénégal ne moomu leen réew mi may fàttali acteur politique yi ci Sénégal ne bu yoboo ngeen taxaw jël seen responsabilité ki ci jiitu nag di président Macky Sall moom soxna Batoor moom la jox moom mi ngeen tuddee soxna Batoor moom la ñu jox réew mi moom lañu jox caggal guyu réew mi moom la wax ne ko réew mu ne ñum lañu la jox président Macky Sall ngalawaay booy dem góorgóorlul ba bàyyil ñu fi réew mu ne ñum réew mu ànd ak dal réew mu ànd ak jàmm réew mu ànd ak sutura réew moo xam ne boroom kër yi seen xel dana dal parce que nag loolu lañuy soxla ci réew mu mel ni Sénégal kon may am yaakaar ci taxawaay bi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ko am parce que boo gisee Sénégal ni muy doxe tey jii dafa am benn interview bu ñu jot ci presse bi moom président Macky sal li ñu doon ru ruumandaat di wax waxi troisième mandat liir leen bu baax li mu wax moom ci boppam nee na admettre na ne que question bi c'est une question politique waaye bu ngeen xoolee nangu na ne bu nangoo sóobu ñetteelu mandat lay te xam na ne sénégalais yi pare wuñu pour jox ko moom Macky sàll ñetteelu mandat parce que moom Macky Sall Macky Sall tële la wone Macky Sall mënatul def lu weesu li mu def Macky Sall tële ak yaradal la wane te lii mu def mënatul a weesu li mu def damay wax ak démb kenn ma ne ko xoolal fi terre bi jaar commune yi terre bi jaar yépp aka ñoo am lu leen metti aka ñoo am ay jafe-jafe aka ñoo am problème mu anan aka ñoo am problème mu assainissement aka ñoo am problème mu santé mais Macky Sall dafa toll ci jamonoy noos parce que l'ivresse du pouvoir daf ko yóbbu moom Macky Sall ci nawlootul yéen sénégalais yi ngeen doon Macky Sall dafa yegg foo xam ne jàpp na ne moom confort personnel am loolu rek moo am solo xoolal fi muy jaar bëtam fi muy tegu bu jugee këram di jëm pale ñaata la fa def 23 milliards ci ci ci ci jëmbat ay fleur ak i defi njoowaan c'est la réalité c'est une triste réalité au même moment au même moment nga dem jaxaay seen centre de santé bi ñu ngi koy tabax fukki at ak benn mënta yem au même moment nga dem quartier ay numaaj nga dem quartier Serigne Mansour nga dem Bawol fii ci Tiwaawoon Pël boo demee ndoxum teen la ñuy naan boo demee jigéen ñi dëkk Bawol jigéen ñi dëkk Bawol fii ci Ndakaar ci Tiwaawoon Pël ay biceps la ñu am parce que dañuy xëcc goj et ça on parle ne du teew ñuy nataal ñu ngi nii waaw kon bu fekkee ne moom Macky Sall tey jii mu ngi nekk di gundaandaat ci alalu réew mi ak njabootam waa Medina Gana Sarr ñu ngi fii ñu ngi may dégg waa Medina Gana Sarr ci zone de recasement fii ci Kër Massar ay saret lañuy ñuy consigné leen bis bu nekk ngir nit kuy mucc saret yi ñoo lay génne pour yóbbu la ci hôpital et loolu biir Ndakaaru kon jot ñun ñu xam suñu bopp jot na ñu mën a jëflante ak ñi nga xam ne dara yiteelu leen lu may lekk alalu réew mi lu may dundee ñaqu baadoole yi te loolu faw ñu taxaw ci ngir mën koo fee jële beneen bi nga xam ne mooy jafe-jafe yi waay waay ku ne gis na ne location tey la gën a seer Ndakaaru ku ne xam na ne naxe mbaay la li ñu du doon wax ne dañuy wàññi location mais man bi ma gën a yittee damay wax suma collaborateur yi démb ci waxtaan ma ne leen dama jóge ci njaboot goo xam ne booy xëyi doo ndékki bu midi jotee dañuy toltolaan fexe ba nga am añ ñu tibb ci reer te tey jii laa gën a gëm ne tey la loolu gën a bari Sénégal jafe-jafe yi jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel jafe-jafe yi nga xam ne yéen njaboot yi yéen a koy jànkonteel ñu ne dañuy wàññee yaay njëg yi ci naxaate donc am na ku ne ma mais commerçant yi nanguwuñu wàññi njëg yi ma ne mais commerçant yi dañ leen bëgg a tooñ rek mais ku ne xam na ne njëg yi mënta wàññeeku te taxes yi wàññeekuwul te kii fixé taxe yi mooy président de la république kiy def taxe yi mooy ñoom ñi jiite réew mi parce que ci taxe yooyu la ñuy dunde ci taxe yooyu la ñuy dundale seen njaboot ci taxe yooyu la ñu jël di pasar pasaree alalu réew mi kon commerçant bi lu ko waay wax da koy tooñ commerçant bi tey jii dañ koo wax ne ko suukar si nga doon indi Ndakaaru suukar sa nga doon jaay Ndakaaru léegi da ngay dem ci usine ba jënd ko waaw léegi kooku sañ nga mu jël otom dem jëndi suukar si ba noppi dellu siwaat jaay ko njëg ga mu ko doon jaay ma ne waxtaan wax dëgg sax làmmiñ bu waxul dëgg wax safaan kon jafe-jafe yi ngeen nekke kenn tegu leen ko ku may président Macky Sall parce que moom moo yokk njëg yi moo yokk dund gi te loolu moom yëgu ko kon nag ngeen xam ne ñoom ñu ngi fooye alalu réew mi waaye pare nañu ñun gëm sa pour jëflante ak ñoom pare nañu nag pour jàkkaarloo ak ñoom may wax rek ci coowal quatre-vingt-dix-huit milliards bu yoboo ñu xam muy tey muy ëllëg quatre-vingt-dix-huit milliards yooyu dana leer moom Mansour Faye tey jii bu nekkee ci réew mi di lapp-lappi dara waralu ko lu mooy sëyam sëyu sëram bu neex waaye nag na xam ne na xam ne sénégalais yi teg nañu leen bët te alalu réew mi danañu ko gox waxuma la rees danañu ko gox parce que quatre-vingt-dix-huit milliards yooyu ma doon wax des fois ma dégg am na benn député bu ñàkk xorom boo xam ne comme Mor Ndeye lu xew mu dugg mu naan Bougane day wut man ba ma amee buzz kenn xamul ma koy leeral ne ma koy leeral ne c'est vrai am na ay marché yoo xam ne xaalis bi du nekk trésor waaye dégluwu leen li ma wax dama ne contrat de marché bii dañoo bind ne xaalis bi trésor la war a dem waaw kon boo ko yóbbuwul trésor wàcc nga yoon waaw bu fekkee ne ministre de la république ay service am mën nañoo leb quatre-vingt-dix-huit milliards ci loo xam ne ministre des finances yëgu ko mais ça veut dire que ñun nekkatuñu ci république ça veut ku nekk mun ngaa am sañ-sañu boo amee porox ndollu nga dem lebi lu toll noonu ci xaalis te ministre des finances du ko yëg ma ne leen compte yi ñu ubbi compte ya amul autorisation ministère des finance xam nga boo leen woowee ci guy gi dañuy wax waxi kàdd gi pour détourner la man kenn du ma détourner li ma wax dafa leer compte bancaire yi ñu ubbi ñoom Mansour fay ak ña muy liggéeyandoon compte bancaire yooyu amul autorisation ministère des finances te ma ne ma dolli si wax leen ne leen moom Mansour fay li muy taxaw di weddi li mu taxaw di ko weddi du yenn say bu ko journaliste yi waxee dara mu ne leen daf leen di li mu taxaw di ko weddi moom Mansour Faye bind na lettre jëme ko ci ministre Moustapha Ba di ko demande mu reconnaître compte bancaire yooyu may wax ma ne ma bu ko weddee bu ko weetee bu ko weetee bu ko weetee Sénégal dinañ gën a xam ne fenkat parce que man bir ma ne day fen moom day fen et moom si boppam xam na ne man xam naa ne day fen et bi gën a neex xam nga da ngeen bëgg ma bii sax ma fen moom xam na ne ci beneen ma dolli leen ci beneen 98 milliards yi ma doon wax Mansour Faye ay ay jël nañ ci 13 milliards joxe ko ay commission maanaam 13 milliards jël nañu ko ci 98 yi neexale ko ay nit bu fekkee ne day porter plainte rek na porter plainte ma du mus a porter ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkit ku ne tarfatal ay ni ñu woo duñ ma mus a woo que xam nañ ne li ma yore bëgguñu alkaati wuyaa wuyaa yi xam la ca nekk kon li wolof di wax ne ku aj ku bëgg bu tee wax ji dañ koo bëgg a fénétal pour que ñu nëpp nëppal wax ji mais bu yoboo ñu xam ne sénégalais yi du ñu fàtte rapport Covid les mille milliards sénégalais yi fàttewuñu l'histoire des quarante cinq milliards d'armement sénégalais yi fàttewuñu suñu ay quatre cent mille sénégalais yi fàttewuñu kon tey bu leen neexee na leen def lu leen neex waaye ñun sénégalais yi ñu ngi leen di xaar au tournant moom président Macky Sall maa ngi koy yëgal ne sur l'histoire des quatre-vingt-dix-huit milliards décidé naa bind waa Cour des comptes pour xaalisu réew moomu nga xam ne jaarale ko ci trésor ba noppi di ko utiliser ñu wax ne fan la teg doxalin bu ñaaw boobu waaye nag waaye nag treize milliards yi ñu jël ci quatre milliards yi joxe ko ay commission neexale ko ay nit dinaa bind OFNAC ngir OFNAC leeral problème mu quatre problème mu treize milliards. parce que nag alal ji suñu alal la suñu ay doom ñoo koy fay suñu ay sët ñoo koy fay te alal ji bi ñu koy leb ci turu Sénégal nañu ko leb kon encore une fois maa ngi wax ne taxaw nañu jatu ne soccant di leen xaar. am na beneen coow bu fi am may masawu le premier ministre Hadjibou Soumaré ndeysaan am nga Hadjibou Soumaré bu ñu ko tuddee xel yëpp dem ci un commis de l'État quelqu'un boo xam ne dafa liggéey lu ëpp quarante quatre ans mu liggéey ci xaalisu état liggéey ci trésor public nekk ministre du budget nekk premier ministre nekk président bu UEMOA kon kooku dañ ko waral respecté parce que du wax waxi kasaw kasaw dafa wax waxi huit milliards yi ñu convoqué ko man quatre-vingt-dix-huit ko man ma ne man ma ne treize milliards alors ma wax rek ni treize milliards yi loolu aussi faw ñu leeral ko bokk na ci li ma wax comme dañuy woote dig Hadjibou Soumaré li mu wax bir na ma ne Hadjibou Soumaré du waxat bir na ma ne man Hadjibou Soumaré du lambat waaye nag il faut qu'on se pose les bonnes questions je dis ici j'affirme et je maintiens que Marine son déplacement au Sénégal a reçu la bénédiction de Emmanuel Macron parce que Macky Sall ci boppam moo joué intermédiaire diggante Macron ak Marine Le Pen dinaa leen wax nag lu tax may leen ma may leen ma buy bu tojul du bari njariñ Marine Le Pen convention d'entraide judiciaire ñu bëri dañu posé wul question yi wax xam nga bu ñu ñëwee ñu ñëw ci interview Marine Le Pen nga xam ne noonu l'islam la Marine Le Pen nga xam ne bukkul jullit Marine Le Pen nga xam ne moom ak baayam jooju ñoom ñaar lu ñu yàqul l'islam dañu ko fàtte kooku la Macky Sall recevoir ci suñu palais maa ngi ñaan ñu dem wàcce ji fa ay kaamil parce que Marine Le Pen du jëmm ju war a dalal ci suñu suuf rek que saaga sénégalais saaga jullit yi la waaye saaga sénégalais yi nekk France parce que convention d'entraide judiciaire boobu nga xam ne dañ ko yóbbu assemblée nationale France Mélenchon dafa ne moom du ko signé dafa ne ñoom duñu ko voté jàll na wala jàll ku ko wote Marine Le Pen laata muy voté ñuy voté ci assemblée nationale bu France lu jëm ci loi pour l'âge de la retraite nga xam ne Macron loolu daf ko soxal Macron amul majorité assemblée nationale bu France ñaari gàtt geen ñooy àndandoo moom Macron bi mu bëggee yóbbu l'âge de la retraite à 64 ans Mélenchon mi beneen pàcc bi dafa bañ kan moo ko waroon voté pour mu jàll Marine Le Pen mi ñëwoon Sénégal kon na xaayaan ku dégg séeréer moom Macky moom la Macron sant liggéey moom Macky moo nekkoon trait d'union diggante Macron ak Marine Le Pen moom Macky pour mu recevoir Marine Le Pen au Sénégal Macron moom moo ko jox autorisation bu def moo tax gisuloo communiqué bu jógee Quai d'Orsay gisuloo communiqué bu jógee Élysée te bu ñu ko weddee nañu ma prouver le contraire élégance élégance moo nanguwul nga nekk njiitu réew di recevoir opposant daloon nañu fii Mballo mais ku ne xam na ne Mballo booyu Ibou Ndafa la donc du def lu ko Ibou Ndafa joxul autorisation te ba ñu koy def fii ci suufu Sénégal la ko defee kon nag Hadjibou Soumaré nañu ko bàyyi Hadjibou Soumaré bu waxantu mën nañu ko xoñoñal mën nañu ko attaqué mën nañu teg épée de Damoclès ci kawam mais li wóor mooy ñun suñu xel kenn mënu koo dégg moom Macky saw la mu def ak Marine Le Pen xam na Macron xam na mais nit ñi jëli nañu la ca nekk maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf